<laughs> mais yaakaar nga ne. Hmm. Euh, dépassé nañu la phase du manque de confiance parce que bu njëkk ba euh, à la perte débat bi mooy oui Amadou bu ñëwee il va nous écarter il va mettre euh, phase boobu euh, dépassé nañ ko est-ce qu'ils ont adopté le candidat. Euh, je ne sais pas honnêtement parce que xam nga nit ñi li ñuy wax ci kaw ak li ñuy wax ci suuf du benn parce que man dama ciy waxtaan ak ñoom ñu bari. mais li ñuy wax ci kaw ak li ñuy wax ci suuf du benn. c'est-à-dire. soutien bi dañ koy affiché ci kaw mais en privé li ñuy wax ak li ñuy kii du benn loolu c'est la réalité dëgg neexul à part quelques fidèles yoo xam ne vraiment man gëm naa ne ñii Amadou Ba lañu àndal ñooñu euh, Cheikh Omar Anne ci la bokk ñooñu euh, Abdoulaye euh, Seydou Sow ci la bokk tu vois ñooñu. euh, comment ça s'appelle encore euh, le gars de Dakar là Abdou Karim Fofana ci la bokk tu vois y a des gens comme ça ñooñu duura Doura Abdourahmane euh, Bari bu Lonase ci la bokk yaa ngi dégg maanaam am na nit ñoo xam ni moom lañu àndal am na ci dans l'appareil vraiment ñooñu moom lañu àndal mais am na ci ñoo xam ne ñu ngi wax ni moom lañu àndal te ànduñu ak moom. vraiment à Podor et dans le Fatick les gens sont à 100 pour cent avec lui. xam nga aussi mënumaa reporter yi ñëpp daal. mais cib gàttal. cib gàttal pour résumer. am na ñu ànd ak moom ci appareil bi am na ñu àndul ak moom.